jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne naam namoon ngeen ñu waaye nam bu ngeen ñu nam nam nañ leen bu ko raw di leen wax ni rek li waral gëj gise bi fan yi yéen a ngi gis plateau bu rafet bi nga xamante ni Ouzin mu ngi koy def ci jàngat làmb mu nekk beneen innovation boo xamante ni mën naa yóbbu làmb ca kanam ay xale yoo xamante ni làmb am nañ ci ñoom yaakaar ñu ñëw toog fii jàkkaarloo def lu ne mu nekk loo xamante ne lu neex la gis naa barki démb kalso euh, sama mbër moomu nga xamante ni ñëpp xam nañ ni sama mbër la ak sama xarit bi nga xamante ni mooy bébé Elton ñoom ñaar ñu def fi jàmmaarloo boo xamante ne bu neex la tey nag ma dalal ñaar ñoo xamante ni ku ci nekk làmb dafa am ci ñoom yaakaar kii di tas yaakaar dama ko fekk teene gaal gi muy bëre di wane lu rëy ci làmb ma ne ah xale bii de fii mu teg tànkam bu ko teggiwut teelut a gis succès teewul gis dara lépp lu sampiyon di doon ci làmb dina ko doon te yaakaar naa loolu ba léegi mu ngi ci dina ñëw ci moom ñaareel bi kii nga xamante ni galañ gi da koo doon muy Momo Ngom saa yu mbër ràqaajoo ci làmb moom moo la ràqaajuloo mu nekk doomu Baabu Ngom ñëpp xam ko ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey mën surtout li muy def ndax nag wolof moo ne lu waay donn mu dëgër te moom daf koo donn moo tax mu dëgër gannaaw loolu dama leen di bàyyi ñoom ñaar ku ci nekk mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan bi xam naa damay njëkkee ci Momo Momo maa ngi lay nuyu di la siyaat di la bége. waa grâce jëli maa lay fay. Hmm. ginnaaw bañ sante yàlla julli séenante bi. Hmm. maa ngi sant sama ñaari waajur ak sama tànta. Hmm. di nuyu waa Sénégal yëpp. di nuyu axlu làmb yëpp. promoteur mbër amateur bàyyiwuma kenn. supporter maa ngi nuyu ñëpp daal. di sant ñëpp di nuyu nag sama fan si club. di nuyu waa Gandiaye bi nga xamante ne fa laa mm-hmm. di nuyu waa Caaro yi bi nga xamante ne fa nekk di nuyu rek di nuyu sa jum di meer maire perkan bi nga xam ne mooy yaay rek si moom laa nekk. Mm-hmm. maa ngi nuyu Sénégal yëpp daal. Mm-hmm. Eh, tas maa ngi lay nuyu fan yi gëj naa laa gis mais macha allah bi ma la gisaatee daa mel ne am na loo doon nëbb waaye gars yi di dinañ ci wax. <laughs> waaye jërëjëf ginnaaw ma sant si yàlla. micro bi. di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm suuf ayof si kaw amiin di ñaanal sama yaay gudd fan mm. ba mu fekkee sama njariñ mm. di nuyu waa Pikine ginnaaw raay bu ma jigee di nuyu sama fañ si këlëb fañ si këlëb tas yaakaar mm. di leen wax ni bañ jàppee ba tey bàyyiwuñu parce que sëñ metti na ñuy dajale seeni xéwal di ma jox di nuyu kii waaye moo may fayal salle musculation. bëggul may wax turam ah daa bëggul nga wax waaw ah, ah, loolu bu laa leer euh, damay njëkkee ci Momo Momo dañu jékki-jékki rek gisatuñu Babou Ngom mu jékki-jékki ñu ne dafa yaram bi dafa sutante ñu jékki-jékki rek gis Momo siif dugg ci làmb lu waay donn mu dëgër li mu donn mu dëgër lool mu ñëw ci làmb ni nga ñëwee ci làmb nu mu demee. waaw loolu moom. xëy na li li olof njaay naan doonu bàyyi ma koy jël te la woon sa maam si sët lay dem. Mm-hmm. te nit ki doonu mu dëgër. dëgg la te nee nañ c'est le sang. Mm-hmm. deret la tey le sang ne ment pas. Mm-hmm. tey dama nekkoon koo xamante ne dama doon jàng di fubal. si centre si laa nekkoon man nekkumoon sa tëggkat. Ah parce que dama doon jàng di fubal waaw man fubal moo newoon sama option. ban poste nga doon football. man numéro 10 laa doon football. laa ilaaha illallah. man football moo nekkoon sama option dama doon jàng di football sama rakk yi ndaw yi sax dañ doon dem di tëggi. man sama mm. papa fayal ma ma dem di jàngi di football. Mm. mais nee nañ taaw boo ko xasee doon rek suñu borom da lay teel a dëgg la tey ñu dem ba sama papa ñi nekkoon ci moom. que mm. su mel ni sama idole. muy Maodo Faye. di di ko nuyu bu baax Maodo. Mbaye Guèye Babou ñoom ñëpp ci sama papa lañ nekkoon ku si nekk sama papa ber la. Hmm. nga ba nga am sa daara bopp. mu dem ba nga xamante ne nii nag fi mu toll nii feebar bi daal na ko ndax moom dafa jabetoon. Hmm. feebar bi daal na ko mu xam ne man kese maa fa des. Hmm. te ndiñ ne comme doonu baay ma koy jël. te tamit man maay sama fils aîné loolu moo ma dugal si tëgg. waaw. nga dugg ci tëgg ban moment nga njëkk jël galañ tey xam ni programme bi Momo Ngom moo ko war a yëngal ban moment la ak fan la woon. waaw man programme bi ma njëkk a tëgg nag loolu gànjaay la benn dëkk bu ñuy wax jàmm gën. jàmm gën waa mais hmm. bu nekkee Dakar moom Père Jax moomu njëkk a dugal Dakar. Père Jax production. Père benn ma koy nuyu de passage nag moom Père Dul ñaan. Hmm. ndaxte kooku seexuñu liggéey man ak moom. kooku hmm. sama père daf ma jàppee comme doomam. ku baax la Jax production ma jàppee comme doomam bu mu jural boppam. moom njëkk dugal Dakar ma ñëw tëggal ko benn programme làmb mun naa ne jour boobu laa dugg Dakar. jour boobu laa continué di dugg Dakar ba léegi. ndaxte mm-hmm. jour boobu ba may dem di dugg Dakar dafa am sama papa lu mu ma yebee woon. Mm-hmm. ndaxte mun naa ne saison boobu noonu benn làmb boobu la sama papa amoon Dakar. damay mm-hmm. dem mu ne ma yaa ngi dem Dakar Dakar kenn moomu ko. na ko ne ma nag fi mu toll nii sax ñun ñoo leen tane woon parce bu njëkk mun naa ne man kese maa doon tëgg Dakar. mais fi toll nii tëggkat yi bëri nañ. yaa ngi dem Dakar jàppal ne tey ngay kon kon ne du dugg Dakar wala nga jàpp ne tey ngay gëjee duggati Dakar. Mm-hmm. ah ma jël conseil boobu jour boobu bi ma xëyee fajar gi di départ. Mm-hmm. ba sama yaay jóg julli ñaari raaka sama tante julli ñaari raaka. mu mm-hmm. ñaanal ma ma tàllal sama papa sama loxo mu ñaanal ma. ndeysaan bu ma duggee si bi. mag booy ba ni ma yegsee Dakar ma booy waxuma. ndaxte dafa am loo xamante nii tey boo ko bu la ko suñu borom tegee. dafay am noo koy gérer. te donte xale laa mais suñu borom ma na maa responsabilisé. Mhm. damay xam li ma yor mooy lan. parce que moo boobu noonu keroog man mun naa ne moom laa duggee làmb ja moom laa tëggee làmb ja ba ni may ñibbisee. Mhm. ndax dama jàppoon ne jour boobu noonu lépp lu dama doon dem tëgg naa ba benn instant ma xam ne lii may tëgg nii man nekkatut man. Mhm. am na leneen lu dugg ci yow am na leneen loo xamante ni moo dugg ci man. moo xamante ne ni nekkut moomoo kese. dëgg la ndaxte bu nekkoon moomoo moomoo kese rek. Mm-hmm. mun naa tëgg li nga xamante ne li nekk ci man kese la ak li nekk ci sama xam-xam. Mm-hmm. mais dama doon dem di tëggaale ba am na loo xamante ne moo bi ma sama papa wax noonu daf maa motiver. la loolu source de motivation la woon si man. Mm-hmm. ba ñi may àndal. ndaxte tamit képp koo gis muy dem sa àdduna entourage am mooy dooleem. man dama jàpp ne moomoo yàlla moo ma def ma nekk koy ne koo xamante ne man la jiital. mais ñi nekk sama ginnaaw ñooy sama doole. parce que benn lamb du yëngu. su ma demee ba ñuy dégg mu ñu sama ginnaaw la. Mhm. ma leen di jaajëfal di leen remercier bu baax na di leen wax ne aw ma seen fay. Mhm. man chaque jour dama koy wax man dama ne man bu ma kenn fonk mais képp ku may ku bugg a xam ni mu moo mel. Mhm. fonkal ñi ma àndal. parce que ñoo sama doole. ndeysaan loolu waxi gor la waxi jàmbaar la ma ñëw ci xale bi tas euh, saison wu ren gis nga malgré Covid bi affaire bi gàtt na temps yi xat na. mais teewul wane wane gën nga cee wane sa bopp waaye ren neex la woo de li nga jël bariwul de gars yi daa mel dañ la sóoraale fi toll nii. non du question de sóoraale ñun ay. xale micro bi. Hmm. ñun ay xale lañ. Hmm. xam àdduna moog loolu ñoo ànd. Hmm. waaw mais ñu ngi sant yàlla bu baax. làmb la rek. temps yi gars yi nee nañ tas li muy li muy daanu ci làmb simple yi léegi dafa bari ñii nee nañ day fowee làmb ñii nee nañ respecté wu ko. ñii nee nañ yi la xeeb. bal la ci. non non du question day xeeb HBCC sax. ku xam tas xam ni tas du fooyee làmb waaw ndax man ba may dugg si làmb kenn kiiwu ma kenn forcé wu ma ko maa ko bëggal sam bopp en plus tamit ma fekk ngemb li si kër gi. Mhm. waaw man sëtu bat leen sikki laa. waaw sëtu bat leen sikki laa samay ndijaay ñëpp bëre muy fils de bat leen ak waaw mooy Yékini. Mhm. ak ñoom ñoom Babacar Adoli ñoom John Lass ñoom Cheikh Benja. Ah, ñoom kon yow ngemb li da nga ko fekk ci kër gi. waaw Gibson moo war a moo war a bëri ak Macha Macha Parara maa ngi koy ñaanal ndam am na combat waaw sunu grand la. moom mhm. tamit lu mu am si àdduna liggéey moo ko may jàmbaar la dafa ñeme lu metti dafa ñuy yee guddi di ñu teg lu metti barki sëñ Bamba. ak Modou Gueye léegi ñu ñëw ci compétition yi. Mhm. ñu jékki-jékki rek gisatuñu tas yaakaar xamuñu ci lan la nekk ñëw na ñaar ñett compétition perte gisatuñu ko. ci lan nga nekkoon. non boobu dama nekkoon sam bopp rek di waaj. nooy nekkee ci sa bopp. maanaam yokk entraînement yi kase. Mhm. yokk nga. Mhm. gëm nga ni actuellement ñu sant yàlla am nga doole. ah ñu ngi sant yàlla. yaa ngi waajal combat bu mag euh, le 7 juillet wala dégg le 7 novembre. Euh, sa diggante kan la. guy gi bu yaraax. ku tëgg làmb jooju. kii moo ko tëgg sëñ Modou Niang. noo koy waajee. waaw maa ngi koy waaj ak samay mbokk. mooy sa premier combat arène. parce que ñu ci bari suñ la xamee mbapata tax ñu xam la. mu nekk sa premier combat arène. kon préparation yi dina uteeg yeneen préparation waaw dañ koy waaj kon nuñ doon waajee yeneen bisi rek. waaw xam nga kuy ñëw di fekk ay 64 litres. Mhm. waaw te adversaire de taille bokkul. Hmm? Mhm. ak benn combat moom mooy loolu. Mhm. waaw bii moom dinañ ko waaj ak suñuy mbokk ak waa Pikine ginnaaw raay. waa mango jeeg ñëpp képp kuy bëggee tas rek maa ngi lay woo si bis bi ñu waaj waaw di wax ni Ndiaye siis jënd na tikke yëpp. Hmm. waaw may na ma tamit ay tiset. waaw Ndiaye di ko ñaanal waaw yàlla na jël kii bi. Hmm. jël kii ban. kii bi mairie bi. <laughs> ndeysaan. waaw ndax moom xale la day day jël day jël alalam di ko def si. si jeune ginnaaw raay yëpp. Mhm. barki sëñ Bamba. kuy mhm. jël alalam di ko bokk ak nit ñi kooku bis bu amee. Mhm. mooy loolu te alalam lay jël di ko kii nit ñi de gars yi dañuy ñëw sax ordonnance yëpp mu jox leen barki sëñ Bamba. billaay sama combat bi ay saaku ceeb yu bari la mu mayaan ay sase ndox. kon da lekk ba suur dinañ ñëwaat ci tas yaakaar ma ñëw ci momo momo dafa dañu dem Gàmbi daje fa journée bi nga xamante ni euh, jam production moo fa defoon face to face. ma gis beneen Momo Ngom keroog da tëgg ba sama papa Lamine Samba maa ngi koy nuyu au dalaa may ba tekki montre yeeg tekki ba nar a simi yére bi gaa yi daw jàpp ci boo duggee ci làmb di bàkk Momo bi may gis nii ak Momo bi may gis làmb dafay am différence différence bi lan la. waaw bi yëpp liggéey la rek comme fi nga waxee damay nuyu sama père père Lamine. Hmm. kooku sama papa la yàlla dafa def ma bëggal ma boppam. dëgg la waaw di nuyu jam production nga xamante ne sama frère la sama zimo la. ah du dara ko di nuyu nag waa Gàmbi. Mhm. ndax tey Gàmbi yàlla dafa def dama faa dama faa bëri ay soppe man ak Mbaye ak Loum. Mhm. maa ngi leen di nuyu bu baax ñoom ñëpp di leen jaajëfal di nuyu sama grand les grand Omar Ndiaye grand Adama maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn Ibrahima Dieng maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. tey dafa am suñu papa Yékini lu mu waxoon benn wax. dañoo dogoon di wax ñu ne làmb mu ne mbër ak nit. c'est diamétralement opposé ñu laaj ko lu tax mu ne mbër bu duggee si làmb nekkatul mbër nekkatul nit mbër la. Hmm. parce que nit weesuwul nekk mbër weesuwul nga nekk ci làmb ñëpp sol seeni yére. Hmm. yow nga ngeen mën na bësay cër nit ñëpp toog di la seetaan ngay bëre. mu ne ma nit ñi ñoo toog di la seetaan mais yow mi nekk ci biir di bëre mbër nga nekkatoo nit te am na loo xamante ne boo duggatee si làmb dangay ngay tàggoog sa dootoo nekk mbër. Hmm. tey ñun dafa am lu fi sam bàyyi. parce que dama ko doon toog di wax gars yi dama doon toog dégg ñu naan Momo di ko concurrencer ak ay Maodo ak keneen ak keneen. Mhm. dama see wax ba sonn. micro man sama àdduna dama wax ne man benn concurrent laa am. Mhm. sama àdduna te loolu nëbbu ko dama koy wax. muy sam papa. parce que xam nga lu tax mu nekk sama concurrent. Mhm. dafa def lu rëy si làmb. jaar fu ne si làmb. ma ñëw jël relève am. kon man dama am yoon boo xamante ne nii yoon bu diis la man kooku laa jàpp ne mooy sama concurrent mais ñenn ñi des te boo nekkee xale yàlla li ma la waxoon sànq yàlla teel la responsabiliser. Mm-hmm. lépp booy def nga yaakaar ko mu nekk sa métier. Mm-hmm. man su ma koy def dama koy def ak ambition def ko détermination ak fulla ak fayda. Mm-hmm. man bu ma nekkee nii si biir nit ñi mun naa nekk di ree di def lépp mais bu demee ba làmb jot ñi may àndal ñoo xam nañ si dara su ma demee ba sol sama yére bi nga xam ne moom laa war a demee tegi di làmb beneen moom laay doon damay jàpp ne nekkatuma moomoo parce que dafa am loo xamante ne moom la ma sama papa bàyyi. Hmm. te bët yooyu ma sama bët yëpp sama yoonu papa laa ko teg damaa ñaan yàlla fi yem. Hmm. man ma commencé fa. kon saa yu ma duggee si làmb rek damay jàpp ne man moomoo mi lépp lu ma des si la def rek am na leneen ne war naa koo yokkaat. Hmm. ba tax na su ma nekkee si làmb damay nekk beneen moomoo des fois damay tëgg làmb ba pare bu ma ko seetaanee damay jàpp ne est-ce que kii man la. dafa yéem ñu bari dinaa ci ñëw euh, ma ñëw ci yow dégg nga moomoo li mu wax maanaam bërekat bi. mbër mi ak ak ak nit ki yow booy dugg ci làmp tas yaakaar mi gis nii ak tas yaakaar bi ngay gis ci làmb ji du benn lan mooy lan moo tax diggante boobu di am ay différence non lu leer lu mu wax ni looloo am hmm. ba si man mii sax daf may dal man bu ma duggee làmb di même ñu ma àndal sax hmm. duñ ma ñemee sax kii barki yàlla. loolu la xabtal la wala gàllaaj yi la wala non si làmb ji la booy da ngeen a garaaw de. <laughs> làmb di nuyu waaw ay ñoom Bamba. Hmm. Bamba daf may jàppale. billaay fayal na ma batara Bamba bu kaw la daf may jàppale bu baax. waaw ak Alsane Ba. yow moom tey da ngaa ñëw ngir tudd ñi lay jàppale. yow jàppale ndax dañuy sonn si man gaa yi mais ñëwal ci li ñuy moom xam nga man dama nekk xale nekk ginnaaw raay. Hmm. Pikine ginnaaw raay gars yi dañ may jàppale nag barki sëñ Bamba ma doon yaakaaru ginnaaw raay. Mm. di topp sama ginnaaw grand frère lu ñu ma digal ma def barki sëñ ba boo yëpp nekk sama ginnaaw. Mm. bëreeguma arène nag mais moom le 7 novembre incha allah bu ma ñëwee Ibamar. Mm. dinañ xam ni mbër mi ñëw na. waaw dinaa indi cosaan dinaa indi lépp dinaa bëre dinaa daan incha allah. di wax ni di wax guy di wax ni guy yu yaraax yow laa wax na nga waaj bu baax. doomu yaraax boobu ndaanaan la de. yaa ngi lay jàkkaarloo caméra bi. <laughs> na waaj de. <laughs> Ah. waaw bu ñëwee ba tas ñëw. dina ko indil seytaane de. xale bu ndaw laa 2000 laa judd. gars yi ñu bari weddi nañ loolu ne 2000. 2000 laa judd troisième mois. booy bu ndaw laa <laughs> dégg la moom sax gëmu ko. ndeysaan bu mel ni euh, doon nga xale boo xamante ni làmb am nañ ci yow yaakaar. làmb am nañ ci yow cër keroog gis naa soq bi muy bëree gàmmu gay soq daan nga dugg ci géew bi si meeku kott soq di jooy mel ni comme si ko dóombër jooy boobu lan la woon ndam ngeen xiif wala soq nga yërëmoon wala quest sa qui se boobu daa am lu ñu si daj ko waa ñu liggéey seek moom ak lépp parce que sëñ Bamba combat bi ba muy mat ba muy des un mois boobu maa ngi maa ngi si àll bi di compétir ñu daja Kaolack mu ne ma tas ñëwal instant yi dernier réglage lañ nekk ñëwal jàpp si contact yi. Mhm. boobu sax ma demi final ak Caaka Faye stade Kaolack mooy 3 millions yu kii jëloon si la bàyyee lépp. Mhm. ñëw Dakar ñu préparé ko ànd ak moom mu ànd ak ñu mu war a àndal yëpp. Mhm. ñu dem ak combat bi yaa ma gën a xam. préparé nañ ko ba mu bañ ne suba la làmb ji mu yàqu mu doon borom baax nag nit ku baax la. waaw te gis ngeen ko day jàppale nit ñi di ko wax ni na ñëw jàppale mbayang na wax si mbayang mbayang gaa yi dañ ko war a jàppale mhm. waaw ndax mbayang amul fu mu toogalul làmb mhm. barki sëñ Bamba man par yenn saa damay toog sax sama xol day bon mhm. billaay gars yi dañoo war a jàppale mbayang billaay walaay dafa war a yaa ma gën a xam billaay euh, mu nekk koo xamante ne vraiment boo duggee si làmb da ngay gis ambiance bi nga xamante ni mbayang lu mu ngi koy def ci làmb diyo boobu ñëpp xam nañ ko moom moo ngom Mbaye ak Loum ah, làmb ju ñu am rek dangay gis. seen diggante ñoom ñaar wallaay jar na lu dee. njar ndeem la taabu kii fii kii di bàkk fii Mbaye Sarr nga gis cosaalu làmb. Mm. nga gis woy làmb sa diggante ak Mbaye. parce que tas ñëw na ci léegi mu nekk koo xamante ne yéen ñaar seen diwo àdduna bi yëpp dañ ko rafetlu xam neexaay gi mu neex seen diggante yéen ñaar. waaw moom mun naa ne sama mag la. caméra bi. Mm. Mbayang yàlla moo ñu boole man ak moom. Hmm. Mbayang sam papa moo ma téye si loxo. na ko Mbayang sa rakk ngi nii. mu toog su suñ saal. Hmm. yàlla moo nu boole man ak moom comme li tas wax. Sénégal dañ ko war a jàppale. Hmm. parce que dafa nekk koo xamante ne gis nga doomu aadama. booy bëggal doomu booy bëggal xolu jaam yi rek. yow nit ñi dañ laa war a bàyyi xel. dëgg la te Mbayang wax na ko. bu doon ay 1 million wala 2 millions. kenn du ko dégg. ndaxte Mbayang séeréer la. Mm-hmm. borom jom la. Mm-hmm. tey bu sañoon bu tawatee dina faj boppam. wala moom ak ay mbokkam ba mu wër. te mm-hmm. sénégalais duñ ko xam. dëgg la mais làmb dafa nekk loo xamante ne nii grand bi mun naa ne tëggkat ak woykat ñoo si gën a sonn ak mbër. te looloo tax ñu naan làmb buñ nee làmb ki koy tëgg la ki koy wëy ak mbër ma koy bëre. tëggkat ak woykat sax mbër sax mën naa mun na taxaw deuxième xam nga làmb ju amul tëggkat. amul woykat làmb ja du neex làmb du làmb. loolu xam nga tey làmb mun na ñëw sax mbër yi duñ bëri. mais hmm. di nga fa fekk ñaar ñoo xamante ne nii si animation ba. Hmm. am na ñoo xamante ne sax animation kese leen di andi si làmb. dëgg la tey làmb mun na ñàkk mbër. animation ba neex ba dañ fàtte ne làmb ja amul mbër. Hmm. kon ñooñu dañ leen naa war a jox cër mais nag pour ñu jox ñu cër loolu si ñun lay commencé. Mhm. ndaxte olof Ndiaye dafa ne béy si sa weewu tànk. te yu bëri yi ñu yi ñuy def ñun ñoo ko war a commencé parce que demoon nañ fi ba ba ñu ngi ko doon wax am nañ association. wéykat mhm. yi am nañ association tëggkat yi am nañ association. Mhm. mais ñu dañoo war a dem ba làmb ji comme ni CNG di def ko ku képp ku teg sa làmb li nga tegal mbër yi mbër CNG leen di jox seen xaalis war na ñoo war a mun di dem ba ñi nga xamante ñoo nekk si arbitrage ak yooyu ku engagé te làmb seen làmb yow mii yow yaay dem engagé tëggkat bi ak wéykat bi. seen xaalis ak seen i ak seen lépp si CNG lay jaar comme ni ko mbëri di jaaree. Hmm. parce que ñun ñoom ñoo bokk làmb ji. dëgg léegi nag lépp loo gis lépp ay waxtaan la. Hmm. Mbaye ak nag suñu diggante man ak moom da yàlla moo nu boole. Hmm. tey mu am benn cofeel si man ma benn cofeel si moom. parce man wéykat yëpp lay dajal wéykat yëpp lay tëggale. man woykatu musique bi sax boo ko ñëwee boo ko àndee si làmb ji may tëgg man dama koy tëggal xam nga làmb mm-hmm. man làmb ja may tëgg ak sama contrat. Mm-hmm. mais des fois da ngay dem surtout moom Mbaye da see sonn. Mm-hmm. ay nit dañ koy oo naan nit ñi dañ lay oo sax ku la oo sax làmb nga ne ko boo jëlut moom moo néeg nii te tel n'est pas le cas. yàlla mooy boole wërsëg yi. ko nit ko promoteur bi on ma oo Mbaye tey boo xamee ne man mii sama làmb mii su ma si jëlee bàyyi jili mii su ma demee booleel bàyyi jili ak tas yaakaar mii su ma leen dajalee si sama làmb ku leen jël làmb ku ku ko dégg rek dafa am tur yoo xamante ne boo leen annoncé si làmb rek day jaay làmb waaw mu moom nga mbayang lu waaw kon nag loolu du ñun suñu borom la dañuy ñaan yàlla nag yàlla yëkkati ko amiin yaa rabbi ndaxte dafa amal làmb njëriñ mhm. barki maam Cheikh Rafal dëgg la mbayang dafa amal làmb njëriñ mhm. te li kiy wax si soox mhm. mbayang doomu aadama daax ko def social lii moom man maa la koy wax tey ci moom. nit daa ko koo def social. Hmm. parce que man xam naa si lu bëri. gis naa ay doomu aadama yu mu jàppale ba tey. kon koo xamante ni da ngay jël ay doomu aadama di leen jàppale. Hmm. yow boo tawetee ak lu làmb dañu la war a bàyyi xel. di woo suñu papa Matar Ba. suñu papa hmm. Père Birasène di woo président suñu papa Macky Sall. Marème Faye Sall. nañ jëmbale mbayam jàppale ko. yóbbu ko mu tukki mu faju mu ñëwaat. parce que tamit njëriñu Sénégal la. dëgg la waaw. jërëjëf am na solo boo déggee li nga xamante ni moom la Momo Ngom wax nga xam ne Mbaye Ngom kenn la ci làmb xale yépp lay bégal képp koo xamante ni buñ nee làmb sax des fois ñu ne làmb séeréer làmb ji dem na ba mujj gi léegi du du du làmb séeréer làmb wolof waaye làmb ji nekk na làmb joo xamante ni Mbaye bu woyee ñépp lay dugg seen biir xol kon message boobu ñu ngi koy lancé ministre des sports suñu papa Matar Ba ñu fexe gostu suñu yaay jooju Mbaye Ngom jàppale ko taxawu ko ba mu delluwaat ci activité am ndax yaakaar naa activité bu continuer mooy contente euh, jeunesse bi mooy contente ñi nga xamante ne ñooy amateur làmb ñooy contente ñëpp. bàyyi jëli. Mhm. doguma la comme li nga wax sànq nii. Mhm. gis nga open press Ibou Ndiaye Diofior bi passé. seen mhm. combat bi avorté. parcelle lañ ko defee. man maa tegi woon open press ba Mbaye moo ko doon wéy. ña fa nekkoon duñ sax ay séeréer. ay booy parcelle lañ. dëgg la mais bu Mbaye ak man ma tëgg. Mhm. da ngay sentir booy olof yi ñoom ni ñu yéegee affaire yi. Mhm. mu ne fi mu toll nii làmb fi mu toll nii dafa modernisé. Ah, nekkatul ay affaire ay ay ay séeréer ak lii. Mhm. ñëpp lay laal fi mu toll nii. dëgg la yàlla ko yàlla ko yàlla yëkkati daal. amiin yaa rabbal aalamiin fa la ma fekk dañuy ñëwaat ci tas. tas saison bi mu ngi waaj a ubbi yi ñii dem nañ samp ji. Mm. ñii dem nañ préparé wu ci ngemb ñii dem nañ taxaw sa préparation. ba waree préparer ci ngemb dem samp ji parce que ku ne xam na ni làmb actuellement. dafa laaj ñaan préparation yu mel noonu maa ngi dégg sànq salle salle de musculation gis naa beneen état de forme jàppale yi nu muy demee ci yow. waaw loolu dinaa si ñëw di wax ni gars yi jàppale bi dafa des nag. yow mi waaw. kon bu jàppale bi ma amoon jàppale weesu naa fii barki sëñ Bamba. Hmm. jàppale bi des na mais tamit gars yi tamit mooy loolu dañuy bàyyi ba nga. kii ñu doog a ñëw jàppale mais instant bi soxla naa jàppale de. jàppale lan koom-koom. si lépp. entraînement. si lépp. lekk. si lépp. <laughs> laay tas yaakaar. Euh? ah lu toll nii amoo jàppale daal. aw ma jàppale bari sëñ Ba man. ñaata amoon jàppale. Hmm. weesu naa fii. ndax xale laa lu may def dama koo gëm dama koo bëgg. te dama gëm ni làmb incha allah damay doon champion si kàttanu yàlla bu yàlla jëlul bii. damay hmm. doon champion. Hmm. ndax lu làmb tere yëpp dama koy bàyyi lu làmb bëgg ma ànd ak reer làmb billaay làmb daf ma jaral. mbër bu bëgg a doon champion. ci lan la war a mën a taxaw ba doon champion. maanaam mu premièrement mu respecté waa koñam. yow loolu daan na la. waaw man boo duggee sama koñ booy laay kafal moom laay reewal barki yàlla. ndax ñooy samay moroom paay nga jox leen cër billaay man sama koñ damay tëdd bu guddi sax nit voyage laa la wax ñëw guddee dañ naan woo leen tas téléphone man maa koy dem jëli si tëli bi barki yàlla dugal ko si koñ bi yaa sama koñ aw sens interdit benn kër kër gu ma neex laay dugg billaahi mhm. waaw ñu ñëw ci drapeau chef de l'État gis nañ fa sa papa ñëw bàkk nga ànd ak moom bàkk bi kott sa papa image boobu ñu bari ci làmb buñ ko seetaanee seen xol day tooy boo defee loolu soo paree bi ngay dellu ci ci ci ci ci ci li nga xamante ni mooy mooy sabar bi ban lan nga ci doon yëkk moment boobu. waaw loolu moom <laughs> loolu moom c'est des moments c'était un moment émotionnel. Hmm. wax dëgg fa yàlla parce que. tey dem ba di nekk ci benn affaire. Mm-hmm. boo xamante ne sa papa moo si nekkoon. Mm-hmm. nga nekk ci tey nit mun na ne mun nga nekk si benn affaire di tëgg te nekk ci comme si la comme làmb ji nii. Mm-hmm. mun nga tey mun sa papa bu newul ne tey sa papa lu mu def rek yow war nga mun a def loolu. tey nit di nga gis nga koo xamante ne jur na doomam. mu nekk si benn affaire doom ja nekkul si loolu. wala doom ja nekkul fa nekkewu si comme ni mu ko bëggee. mais man damay sant yàlla. ndaxte man sama papa chaque jour da koy wax day toog di leen wax na leen kii li si moom du man maa ko def si moom du tëggkat moo ko def si moom. Mm-hmm. kii li si moom ay jinne moo koy def si moom. ndaxte man des fois damay nekk di tëgg loo xamante ne damay toog ba damay gis sama papa toog damay tëgg moom dafa bañ ba léegi sax faral dafa faral nangootul sax di toog may tëgg. Mm-hmm. parce que fi mu koy yóbbu la tey boo boo amee papa ju mel noonu te tey kenn mënul wax si àdduna tëgg fi ñu toll nii Sénégal. Mm-hmm. te waxoo Baba Ngom. wallaay kon kooku nit mënu koo jaaxal si tëgg. Mhm. kon boo demee di tëgg si benn affaire nga nekk si benn rythme ba mu am fu mu ko yóbbu moom kon góorgóorlu rek moo la war. Mhm. te man yàlla dafa def sama papa yàlla daa def ma bëggal ko sama bopp. ndeysaan loolu moom man mënu ko sax sigi xool. Mhm. moom des fois day def sax comme ni muy def ak booy pour bugg a waxtaan ak man kaf ak man de may mënu ma ko. parce que dama ko rus de trop. parce que amul bi ma am ci moom la. ndeysaan tey man mun naa ne. comme li ma wax sànq man ba may def zogon. Hmm. laa commencé yor suñu kër. yow mi parce que Seydina Mohamed. yëkkati micro bi ngay def zogon. bi may def zogon. Hmm. laa commencé yor suñu kër. nan ngay defee zogon ba pare di jàng yor seen kër. voilà bi may def zogon ba maa ngi nuyu suñu benn professeur koo xamante ne moo ma doon jàppale si lu bëri. Hmm. ñu koy wax Moussa Ka histoire zoo. moo ma yoroon dafa am benn jour sam papa ma ay dàll. mu toog ba si suba sax. Hmm. mu woo ma téléphone ma nekk école mu a ma tey kër gi du ñu añ. sa papa wax loolu. waaw ma a ko ndax lan a non parce que dépasse amu fi. Hmm. ma woo professeur bi ñu waxtaan si man ak moom ma ne ko dafa am ay dàll yu ma yoroon damaa bëgg nga may ma génn nga may ma cours bi une heure de temps ma dem jaay sama dàll yi ñëwaat. mu a ma baax na professeur bi ne ma kaay nga jaay ma ko ma jël dàll yi dem jaay ko professeur bi 5000 francs dem sam papa ñu xëy si suba sax mu yóbbu ma Kaolack jëndal may dàll jëndal may mayo jëndal may bal ma jël lépp bi may xëy di jàngi ma yóbbu ko. ci suba si suba si. ma dem si professeur bi fekk yoruñu woon sax ma fekk ko ba seen classe ma ne ko dama laa soxla mu ñëw ma ne ko man di dafa ma jaaxal ndax sam papa daf ma wax ma dépense si kër ga. Mm-hmm. ma jaay samay dàll jox mu dépensé ko. Mm-hmm. tey ñu xëy mu yóbbu ma Kaolack jëndal ma lii yëpp. mu ne ma très bien mu ne ma sa papa boo bëggee dégg dëgg mu ne ma mu ne ma dalaa teel a responsabiliser. Mm-hmm. mu ne ma lii bu dee yow ko am xel nga dalaa jàngal ne yow mi fi mu toll nii. Mm-hmm. ginnaaw yàlla tey moom yow la yaakaar. Mm-hmm. te yow yaa war yow yaa a jël relève. parce que commencé naa jëm mag. depuis booba laa def su ma tegi woon nii man dara. man fubal rek. chaque jour loolu laa doon def ba yàlla daf maa dimbale ba fi ma toll nii barki Seydina Mohamed lu ma mun di am. Hmm. sama papa sama yaay sama tante man bëgguma tus. mais loolu dama siy sant yàlla. Hmm. parce que maa ngi am loo xamante ne nii man mun naa ne li may lekk li may li may ñàkk sax man feneen la jëm man lépp li nekk si man doomu aadama ñoo koy def si man. ndeysaan te dafa am benn paa boo xamante ne dafa daf ma teewoon di ma ñaanal. Hmm. mu ne ma doom lépp loo mun di def sa àdduna na nekk sax say waajur. Mhm. lépp loo def si ñoom denc la. wallaahi suñu borom nga koy lebal moom moo la koy fay. mu ne ma parce que mag buur la. Mhm. moo tax képp ku mën koo xamante ne nii jeune nga man dama lay wax ne la lépp loo mun di am sa àdduna dee koy bokk ak say waajur. Mhm. parce que doo ko ñàkk. jili man mën naa ne. damay damay rey sama bopp ndax samay waajur. dëgg la man mënu ma sax di wax si ñoom. saa yi may wax si samay waajur damay am loo xamante nii dama koy yëg si ñoom. doo ko rëccu de. barki maam Cheikh Rafa wallaay doo ko ma doomu aadama nag du ma ñaan. Mhm. parce que Covid bi passé mun naa ne un mois un an un mois la. Mhm. attaque weeru yàlla. Mhm. billaahi wallaahi wal kitaabi di autorité du suñ meeru dëkk doomu aadama boo xamante ni yàlla baaxal na la bu musa wax ne gis nga moom mu taxaw si sa wet ne la nii. te joxuñu la. wala am na ñu la ji. wala am na ñoo xamante ne dama leen di ñaan ñaanuma doomu aadama tey su ma sonnul si Covid bi ñaari doomu aadama ñoo tax. Mhm. barki Seydina Mohamed fu ma toog dama koy wax. Mhm. muy rëg-rëg benn. menn Omar Kane. Omar Kane rëg-rëg. Mhm. ak père Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye. père Cheikh Ndiaye mu ngi dëkk Mbéra Kajaw. di nuyu waa Mbéra Kajaw yëpp. sama paaw Maara sama lii téléphone bi barki maam Cheikh Fall ma ko jëndal jour ba mu wax ak làmb décoré. ma yóbbu ko ko moo ma jëndal téléphone bi. ndeysaan man yàlla daf maa dimbale ba samay nit ñu baax ñi ma am sax ñoom ñoo may defal di ma defal seen yi ñu am di ma jox seen i alal te loolu yëpp dara waralu ko lu dul ay waajur. Mhm. parce que doomu aadama tey lépp looy liggéeyal say waajur mënul nëbbu. say mhm. waajur lépp looy def si ñoom day feeñ képp ku fi defal say waajur da ngay yokk mais doo wàññeeku. di defal say waajur di wàññeeku ah man de moom musuma ko gis. te du am mukk. barke man dinaa ñëw ci yow gis naa sa digganteeg sa yaay yéen ñaar ni ngeen Euh, boo boo boo koy des fois nga def ko estati yaay tas yaakaar ak ni yéen ñaar mu mel ni am na affinité boo xamante ne romb na diggante yaay ak doom te yéen ñaar da ngeen cofeel boobu tey ak mbébét bi nga xamante ne am nga ko sa yaay tas. sama yaay sama xarit la. micro sama xarit la. Hmm. ma koy nuyu di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram. Hmm. amiin di ñaanal sama papa tamit fu mu tëdd suuf ayof si kawam. Hmm. sama sama gaan la sama xarit la sama lépp la ma jógee entraînement barki hmm. alxuraan danaan ma kaay tëdd fii bala maa ñëw day damay fekk mu defaral ma mu xam sax. ndeysaan. billaay damay ñëw fekk xoolal mu defar ko ba ba mu sedd damay ñëw rek xoolal avant may sangu laa koy naan. ndeysaan. billaay. Hmm. bo di di man daal lu mu bëgg sama yaay bu ma koy wax fii nii. barki sëñ Fallou fii laay fanaan. billaay. Hmm. yàlla baax na. Hmm. yëkkati na ay kàddu seede yu am solo yoo xamante ni man la ko wax jëmale ko ci yow. Hmm. muy mel ni saa su ne rek li may wax eh, boo góor góorgóorloo tuuti lépp loo champion di am ci làmb di nga ko am ci làmb ndax nag vraiment eh, ñaanu waajur moom gàllaaj la ci doom. ginnaaw lépp eh, ñaanu waajur gàllaaj la ci doom moomoo ñu nekk ci moment boo xamante ni mbokk yi moment la boo xamante ni Covid bi dafa ñëw. dégg ngeen sànq ni ko moom moo waxee un an ay quelque ba dellu siwaat nañ ci li nga xamante ne mooy troisième vague bi ñu doon wax mu nekk loo xamante ni kii ci làmb rek la yaakaar pour mën a teral ay waajuram mm. ci làmb rek la yaakaar ngir mën a yóbbu li nga xamante ne mooy ay famille dépense am ci làmb la ko mën a jëlee te ci làmb la ko yaakaaree kon jot na ñi nga xamante ne ñu ngi naan làmb ñoo mbërin impacté woon nañ ci yëf yi wala mbër yu ndaw yeeg mbër yu mag yi ku ci nekk ñu ngi ñaan dimbal moom ñaanul dimbal mais man maa ñaan monsieur le ministre des suñu papa Matar Ba ak président de la république ñu gestu xale bi ndax baayam lu ne defal na ko làmb baayam taxawaay bu ne taxaw na ko làmb baayam saa yoo su dugg sam ci làmb ba tuus wala ba bàkk sa xol day sedd moo tax ñu bari ci làmb ay kilifa lañu yoo xamante ni bu ñu ko gisee muy tëgg dañuy jooy rek man am naa ci firne keroog terrain gaal gi am na ci kilifa goo xamante ni daa mujjee jug kott ko jooy mais bis boobu moom bi muy jooy nangul jooy ci kanamam daa dem ba fi muy tëggee mu tëgg tëgg tëgg tëgg ba ci digg bi làqatu jooy nga xam ni kon am na beneen yëg-yëg boo xamante ni mu ngi koy yëg ñuy ñaan rek képp koo xamante ne autorité nga ci réew mi nga gestuwaat xale yi bu baax a baax a baax li wolof nag naan lu duufandoo ci nag bi xajandoowul ci cin bi moom moom mii dafa nekk ci yoon tas yaakaar noonu euh, ma lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité déplacé wu ñëw vraiment kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla defal la gudd fan ak wér ba mbébét bi nga am ci waajur yi yàlla kàttanal la dooleel la ba nga defee ko ni nga ko bëggee hmm, ma lay jaajëfal bu baax. waaw di nuyu ñëpp rek. di hmm. sant ñëpp di leen sant yow tamit. Hmm. parce que di leen ñaanal seen tele bi fu ngeen bëgg mu yàgg yàlla ko suñu borom yeggale. du nuyu nag waa Gandiaye. ndaxte man gànjaay mooy sama fierté mooy sama doole. Mhm. fu ma mun di dem si àdduna. Mhm. gànjaay lay xeexal. ndeysaan dégg nga kee consigé a ko léegi nee na moo suñu fierté. suñu fierté moom bokk na ci. ndeysaan kon dama leen di nuyu di nuyu Père Bour Gànjaay. Mhm. di nuyu monsieur le maire bu fa nekk Pape Soxna Diop. du nuyu ñëpp du nuyu suñu grand suñu lépp muy Kareka. maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Babacar Diagne. di nuyu sama xarit yi may àndal foofu yëpp. bàyyiwuma kenn daal. Hmm. maa ngi nuyu waa dëkk ba yëpp gànjaay ndax su ma limee benn koñ sax ñenn mën nañ see gis bopp seen bopp. Hmm. ma maa ngi nuyu waa gànjaay yëpp. Hmm. du ñuy ñoom Fara ñoom Coor Passiré Abdou Ndiaye Bass Paya ak ñoom ñoom kii nii Ousmane bàyyiwuma kenn daal di nuyu nag sama seexandoo Déthié. waaw di nuyu waa gànjaay yëpp di nag sant sama fans club. parce que tamit ñoom it dañ may jàppale bu baax a baax a baax a baax. maa leen di sant bu baax a baax a baax di sant nag caaro bi nga xamante ne fa laa nekk. di sant rëg-rëg si boppam. maa ngi koy sant di sant Cheikh Dioum. di sant yaayam. parce que nag wax dëgg fa yàlla tamit neexul mun naa ne léegi ma def fi lu war a mot trois mois. ndeysaan su ma ñibbee sax barki Seydina Mohamed dañ may oo di ma laaj mun ma kañ ngay ñëw. Mhm. tey kon ñooñu jàppee nañ ma ñoo xamante ne jàppewuñ ko sax rëg-rëg di leen sant bu baax nag di leen gërëm di gërëm waa Sénégal yëpp mm. bàyyiwuma kenn lépp loo xamante ne nag jub na si wax ji ñu xam ne suñu borom la mm. lu dëng nag tamit ñu xam ne man taalibe bu xëy bu bii laa sant sama sëriñ sëñ maam Cheikh Fall Zikru laa di a ñaanal yàlla na yàlla bàyyi ko fi ba si kanam kanam euh, tas yaakaar maa lay jaajëfal bu baax a baax kontaan naa ci yow waaw di ñëwaat rek di mm. wax ni waa Pikine nañ ma jàppale waaw man doomu Pikine ku may seet si sax ñëwoo Pikine bul ñëw man Pikine laa gëm. Mhm. barki sëñ ba cuuju Pikine sax bu doon bëre damay dem esat mhm. man maa gën a ndaw Pikine. Mhm. billaay wala moo jugee ñëpp jóg. waa di wax ne nañ gën a jàpp di nuyu waa xam sa cosaan yëpp. sama coach moo moo ñu gën ko xam si Modou kooku jàmbaar la billaay. waaw di nuyu waa xam sa cosaan yëpp ak lëppi. coach lëppi ñëw Modou Gueye ma may entraîné géej guddi gi. Mm-hmm. waaw di nuyu waa xam sa cosaan yëpp sama nijaay yi ki nii. Mm-hmm. day sonn si man lu ne da koy daj si man barki Seydina Mohamed. nee na moom soxlawul dara man ma réussir doon champion rek la bëgg. ndeysaan barki Seydina Mohamed fu mu mm-hmm. xam si lu baax daf ma fay yóbbu. te mbër la de day tax ngemb ni man. ndeysaan billaay walaay fu nekk daf ma fay jaarale. billaay bu ñu waxee sax mu ne booy bi mooy champion bi. barki maam see rafal di ko nuyu di ko ñaanal jàmm. waaw billaay di wax ni man waaw man daal sama mooy neef bi di wax wër na nga judd si këru famille mu am nu mu demee. Mhm. barki sëñ Bamba sama papa teel a gaañu bàyyi ma ak ay xale yu ndaw. Mhm. wër na sëñ Bamba mais yàlla baax na yàlla dina motali lépp. man incha allah damay doon champion. incha allah rabbi. billaay walaay fu ñuy séntu ndaanaani. Mhm. dañ ma fay déggoo. incha allah rabbi maa la wax lii ji. incha allah rabbi. bu soobee yàlla si yàlla àndee. di nuyu ñoom Batista ñëpp. waaw ak waa. ginnaaw raay bi Pikine beeg ñëpp sama fan si këlëb fan si këlëb tas yaakaar bi. Mhm. waaw ku lim juum waaw. sa nijaay daf ma bàyyi mais amul problème. Euh, xam naa bàyyi wala day wàcc day wàcc sax waaw di ko ñaanal ndam euh, dafa am nag sama ñaari yaay yoo xamante ne. Mhm. foog ma gërëm leen. du mën a ñàkk muy maman Ndeye Ndior ak maman Khoudia dama leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. Mhm. parce que dañuy daj nag lu nekk. di dégg lu nekk ndax moomoo. Mm-hmm. te teewul fañ jàpp ba léegi ñu ngi fay jàpp. Mm-hmm. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm umu béy maa ngi koy bëggee bu baax mu nga dëkk ba Gandiaye. Mm-hmm. maa ngi bëggee ñëpp gaay di leen ñaanal jàmm. yàlla na jàmm yàgg si réew mi tamit. bëgg naa sama yaay bi nga xamante ne xamuma euh, Ibra Gueye neen na Fatoumata Tall ministre de la jeunesse bëgg naa mu mu mu dalal la jàppale la taxawu la parce que bu ñu nee yaayu jeunesse bi moom la. tey actuellement mu ngi mu ngi mu ngi bëgg lu rëy diggante bi nga xamante ne mooy commune Golf Sud loolu moom di maa ngi koy ñaan te maa ngi ñaan yàlla Ibra Gueye mi nga xamante ni mooy léppam mu dalal la incha allah rabbi dinaa ko jox sa numéro dina la woo bu soobee yàlla taxawaay bi dina rafet. incha allah euh, di jaajafal bu baax jara jàppale la. non la ndax moom borom baax la. Mm-hmm. te moom dafa bëgg lu muy def gëm na ko. ndeysaan parce que sëñ Bamba. Mm-hmm. dañuy daje fu nekk nag. maanaam làmb bu tasee nii ba ma gis leen ñoom après. Mm-hmm. ñi jëlaat seen i matériel yi. di ko yeb si si oto bi. oto bi war bëri jël seen saa di ñibbi man sama xol day tooy damay am lu may yëg. dëgg la yàlla ba waykat yi di dugg seen oto yi ku boo xoolee lamb Gàmbi bi mhm. damay xam ne lamb maanaam kaf la ak ree mais ku daanu rus mhm. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay am na yoo xam ne jaru ko parce que sëñ Bamba ndax lamb ji bu tasee kaarang ñun ñëpp ñooy taxaw si frontière bi ñuy dem Dakar dem Dakar. ñuy dem Fatick dem Fatick. Mm. ñuy dem Niodior loolu dafa neex quoi. barki yàlla moo tax fan yooyu ne ñu tëj làmb ji damay tëdd ba guddi barki sëñ Fall bu nekkee lu ma lay amul. Mm. yàlla bu ma màggali. Mm. damay tëdd ba guddi di gént. ma nekk si làmb di feccat. billaahi. ba ñu ma tëddal dañuy naan waa tas yow lan moo xew. ma ne leen dara. dara gars yi dañoo war a tijji làmb ji ñun ay xale lañ. bis bu xasa dem. boobu rëcc na waaw te ñun làmb lañ yaakaar amuñu benn métier. bu ñu réussirul si làmb dañuy wayadi. Mhm. waaw. Mhm. moo tax si temps ak lépp lañ koy def si làmb. Mhm. man bëgguma dara soxlawuma dara. doon champion rek laa bëgg dimbali sama yaay. waaw jël roi bi indi ko fii di ñaanal Ama Baldé yàlla na daan Modou Lo jël bu gaaw. guddi gu bës setagul barki di ko ñaanal te yàlla da koy def. yaa ko sañ. incha allah yàlla day def lool ndax càmbaar ah, moo neex a àndal. ama champion la. Mhm. billaay wallaay. sëñ bu ndaw bi di ko ndam bu gaaw bu waaw daa war a ñëw nag. ñu xool état de forme bi <laughs> ndax gis nañ ko fa buy liggéey liggéey bu am solo mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di am kontante ak mbégte ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb di leen jaajëfal rek saa su ne li ma leen doon wax dooley jën ndox